Heavyweight.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 Waali yi dëkk ca village la fois nekk ca Joal mbir mi nag nee ñu liye ko indi enesti jabaru Waali dafa tagg Waali na day dem tabaski ji kër am naka noonu Waali daa di ko koy nangul Waali nag bi mu bàyyee jabar ji dem tabaski ji kër am loolu neexul baay bi baay bi dal di takk ci kawam ne ko tax nga bàyyi sa jabar mu dem di tabaskee sa kër nijaay baay bi nag mu ngi woo ci turu RS Diouf ci loolu la RS Diouf di bàyyi Waali tiime waali di ko tifaarey saagay nday ba saagay nday takar naa seenaak ci la doom ji waali daal di mer songu baay bi ëpp naa def ëpp def waay ba ñuy songo nag ci biir kër gi booba kenn nekku fa ci la ñu raagee raag bu metti waali dal di gëliyaat dóor ko baay bi ñetti yoon ci bopp bi baay bi daanu ay waay bi baay bi daanoo noonu ci ëtt bi ci la waali delloo biir toog di xaar jabaram bàyyi baay beeg mettit bi ci digg ëtt bi waay waay waay waay waay mim réew mbir mi nag yoon mujj na cee am loxo ndax wali gannaaw ba ko yoon tegee loxo gendarme yi bi ñu koy interroger ca brigade bu Joalo nangu na ne moo rey baayam eskay nee nag li tax mu rey baayam baayam dafa dëkkee doon fitnaal jabaram ay waay ci piri gannaaw loolu nag parquet bi dafa mujj qualifié jëf ji mu def li ñu naan homicide involontaire wali mi rey baayam ndax jabaram nag yoon mujj na ko daan quinze ans ma ne ko nag am nga woyu dootul fay rey ngir sa jabar moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax la xew sa xombal romb na doy waar ab borom saret daal moo fa jàpp jabaram jamate ko ba mu yaakaar ne dee na mu jël butéel bu am posan naan ko daa di xaru cay mim réew borom saret bi mu ngi wuyoo ci turu PM Samb ati toll ci juróom fukk mbir mi nag nee ñu mi ngi xew talaata fukki fan ak ñeent ci weeru décembre bi ca xombal nekk ca région bu Thiès enquête yu njëkk yi nag li mu wane mooy yëf yi li ko indi du lenn lu dul fiirange ma yàgg ko wax fiirange mën naa defloo nit lu ne laa wax ndax afal di jabaruwaa ji dafa bàyyi woon kër jëkkër ji dem luwe ci pegg gi tubaab di ko wax abandon conjugal te loolu nag bi mu koy def jëkkër ji àndu ci woon ci loolu nag PMS di jëkkëru ndaw si soupçonné ne jabaram dafay dem di seq ak yeneen i góor ay waay ma ne mënoon nga koo bàyyi rek te wuti keneen ba tax à chaque fois da doon jékki-jékki rek bett ndaw si fi mu luwee ñëw di caytu ngir xool ni mu toogee bis nag ci la defaat li mu doon def bett jabar gi fi mu luwee ngir seet ni mu toogee bi mu egsee ci kër gi nag dafa fekk ndaw si di sangu mu jël portable jabar ji di xool li ci nekk ma ne ko nag yaa yër de te ku yër gis naka noonu nag ci la gisee ci portable jabar ji ay image u jabar ji yu doy yoo xam ne jabar ji daf ko doon envoyé yeneen góor ay way naka noonu nag ci la bal di mere futtu bi jabar ji génnee ci toilette yi rek ci la ko xëppee mer gi ci kawam jamate jabar ji mane ay jam-jam yu bari la wax deret gi sangu ko ci noonu ndaw si dal yuuxu mu yaakaaree ne nag na rey na jabaram ci la jël benn butéel bu am poson dal di koy naan biñ ci tegee ay heure rek ci la dal di ñàkk bakkanam ndeysaan ci la sapeur yi ñëwee jël kor bi yóbbu ay waay ay mbëggeel jabar ji mu jamate nag moom mu jul ñàkk bakkanam waaye nag évacué nañ ko ca l'hôpital régional bu Thiès fi mu ne ma nga ca urgence ngeen ngeen ma waxaat leen ko billaay lii xew ci suñu sëy yi jéggi na dayo ray sa jëkkër ray sa jabar ray say doom xëpp sa jabar asib xëpp doy na waar moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona laa wax waaye nag moom tey duñu dem mukk te sargaluñu ceebu jën ndamal ceebu jën gi rey na ndax ceebu jën kat léegi dañ koo classé ci li nga xam ne moom mooy patrimoine immatériel de ko loolu nag moom mooy Penda Mbaye am na ndam Sénégal nag yéen ñi ko dëkkee ñàkk war ngeen koo sargal mu doonoon seen xibaaru bës dig daje samedi Buzz.